xalbuka ci sa xol ma lo xamne lam yakun amu ci won ba xana ñu musa ne ko na nga moytu ci jaxasante ñu top seen banex legi fa ñu def ci sa xol lo xamne nekku ci won ñom ñoko ci def wa qala waxna sahlun sahlun ibn abdullah man dahana ku noyelante han aji top bida salabahu kun ko allah yalla halawata sunani neexiti top sunna sahlu neena kuy fekk kuy top bida. ngay nooyalanteeg moom di ko oyof diine ba di ko fekk ca bidaam joojee ana woo ko sikkal bidaa ba xanaa bëgg ko neex rek al mudaahanatu ma woyof diine bay ànd ci loo xam neexul yàlla mu ne nag kuy fekk kuy topp moom bañ koo xamal ne ko li nga nekk bidaa la te bu ci génnut moom mu daal koy génn sore ko yeneen loolu kuy nooyalanteeg kuy topp bidaa rek yàlla julli ci yow neexitu topp sunna maanaam daal layangante ak nooyalante kuy topp bidaa day tax yàlla xañ la neexitu topp sunna wa fil ibris nekk na ci ibris lil ya daal ay ñel ya mu ne damaaye jubu na kam yu ware tajannubu ahlil bidaahi sori ñooñ bidaaya wal ahwaay ak bànneex ya kazalika naka noone yajibu dana war tajannubu muxaalatatil umaraa yi moytu jaxasonte ak buri aduna yi wa salatini ak buri aduna yi batay wala nga ak seeni dab lima ngir li nga xamne fiha nek na ci jaxaso gogu min fasadi diini ci yaqku diine ba demé téré ibris waxna ci ne li nga xamne mom wara moyto ñi top seeni bani ak bida non nga wara moyto jekk di jaxasonte ak buri ak seeni dak fa fi hadith nek na ci ab hadith mu ne sayakunu khalsatna am bahdi ci sama gannaaw salaatiinu ay bur yo xamne al fitnu ay fitna ala abwaabihim ci seeni buntu kama baarikil ibili ñi ngi mel ni yësukaayu gëléem la yo yoxtoona duñu jox ahadan kenn shay an dara illa axasoon dara ñu jàpp min hi ci diineem mislahu am kenn hadis ba nee won dañu dama dem ba nga xamne bur aduna yi fitna day bari ci seeni buntu nga xamne bo dewe ba am fa dal seen alal tam sa diine moom fa lay dess manam dal lo am seen alal rek ñàkk lu toll noonu baalu ko ci sa diine wa qaala ibnu mas'udin wa qaala wax na ibnu mas'udin ne yedd xulu dana tàbbi arrajulu waaja xala sultaani ci ab buur wa maxaxoo te ànd naag moom diinuhoo diineem fa yaxruju te muy génn wa maa maxaxoo te dina muy ànd teeg moom cheyun dara ibnu mas'ud nee na mën ngaa dugg ci buuru adduna ànd ak diine mat waaye booy génn doo sa diine dal ko ñàkk foofee وقال وخنا الفضيل فضيل ابن حياب بن كنا نكون نانو نتعلم دي خملو موي دي جانغ اجتناب السلطاني مويتو بور كما نتعلم نمي جانغي سورة الأوصار من القرآن في القرآن الفضيل نينا نمي جانغي أوصار في القرآن ديكو جيما خرجة نون لن دان جانغي نوني مويتو بور أدنا وبنجا لولو وقال وخنا الثوري سفيان الثوري نه ida ra'aytum dem gis ngeen al qari'a aji jang ja moy borom xam xam diine rek yaluzu mi wéru bi sultani ci buur fa'lamu xam leen ni annahu nak mom lisun am sacc la dafa ngeen gis borom xam xam mu dem di and ak bur di wéru ci mom rek xamal ni koku am sacc la wa qala wax na it ne inna fi jahannama nak nek na ci jahannama si julan ab kasso tastahidu abduna muslimu ci mom jahannamu jahannam kula yawon bis sabihina juróom ñaar fuk maratan ci yoon kasa bobu nak ahaddahu wajal nako moy xaronako allah yalla allahu li qurra'i ñeel jang kat yi azzairi la ñetti way siyaare li salati la ñeel bore a neena jahannama am ben benn bo xamne dafa ñang ñang ba jahannama ci bop day muslu ayu kasa bobu te mom ci biir ci biiram la nekk sax waaw te bis mu nekk jahannam do ko do ko muslu juróom ñaar fuk yoon te mu nek kasso wowe kat suñu borom ni ko wajalal jàngkat yi nga xam dañuy siyaare buri, dañuy dem ci buri di leen seeti xaala mu ne wa iyaaka wattul an tuxdaxa bu dee fi la wor bu dee fi la nax fa yu xaalate dee fi wax la kañeel la ne la da nga delloo ak tooñaangi aw baa da nga jiñ an madloomi wis ko ñu tooñ an min fa inna haasi si naka lii xiddaxatu iblisa mooy warub iblis ittaxasaha jàpp na ko sullaman muy ab muy ab kekkaraan maanaam muy ab escalier lil xuraa i ñeel jàngkat yi na nga moyt naa la ah yow day mën ngaa dem ci kër buur ndax boo demee xam naa ne yow kee ñu fa tooñ rek ngay dimbali ndax ñu teggi tooñ nga mbaa dama leen di labiri rek ndax ñu génn ci dëng gi ñu def mbaa yooyu mu ne loolu iblis moo la koy fexeel rek fexe ba nga dugg boo duggee rek doo mucc ci loolu rek iblis a koy def wa dahaba dem na jumhur mbooloo mina salafi ci way jiituña wa sulahaayil xalafi wa sulahaayil xalafi ak way baax yi kuutaat yi asalaf mooy ñu jiitu ak xalaf mooy ñu nee na mbooloo ci ñu baax ñi ak mbooloo ci ñu mujj ñi nee nañu ilaa ann haadihil ahadisa jëm ci naka yi lay addis jaariyatun aji daw la xalaa itlaax yaa ci seenug bawal sawaawun wa yemoo lañu daxawu moo xam woo nañ ko ilal ma ji jëm ci dikk am laa wala wa sawaaw wa yemoo la daxaw fu moo xam woo nañ ko li maslahat ngir maslaa diini yétan ngi ko ju diine am na xëy rihamalul moom mu ne daanaka borom xam-xam yu jiitu yi ak yu mujj yëpp tey ñu yu baax nee nañu addis yi dafa war a matale ci wàll yëpp amul ñuy teqale naa buñ la wooyee yemawuta boo jekki-jekki dem ak boo fa demee ngir maslaam diine wala yooyu nee na yëpp jël ñu ko ci tànkangam wala wala ñu ah maslaam ji kay bu fekkee moo tax nga dem ci ñoom nangam ak nangam yëpp nee na mënta wax est-ce que war a dangal ni ñu ko waxee rek ci kaw wa fil xadis nekk na ci hadis mu ne sa yakkoonu xalsat naa am fii aaxiri samaani ci mujjub jamono xolamaa way xam yu raxiboona ñoom danañu xemmeem loo an naa fa nit ña fil aaxirati ci àlaaxira wala yu rawaboona te ñoom duñ ko xemmeem wa yu saxidoona te ñu dëdduloo nit ñi wala yëzhadoona te duñu dëddul wayen hawna te ñi tere an khishyanil umara walis dikal buri wala yantahuna luñ ko bayyi ni hadith bu leena muy jamono ngay gis borom xam xam yo xamne dañuy xémal ñu nit ñi al alakhirah te ñoom duñ al alakhirah di dëgg lo nit ñi aduna te ñoom duñ dëddu aduna di ay nit ñi dem ci buri te ñoom du tay ñu joy dem di ay nit ñi dem ci buri te ñoom du tay ñu joy dem wa fihi nak na ci hadith mu inna allaha naka yalla yuhibbu dana sopp al umaraa buuri aduna yi isa xaalatoo ndem jaxasoo nañu al xulamaa aw xam ña li ànd zalik ngir naka loolee yu raxiibuhum di leen di xememloo fil axirati ci alaxira wa yam xutu tam yu sànje mooy tam yu bañ al xulamaa aw xam ñi isa xaalatoo ndem jaxasoo nañu al umaraa buur yi li ànd zalik ngir naka loolee yu raxiibuhum di leen di xememloo fi dunia ci àdduna mu ne addis yàlla bëgg na buuru àdduna boo xam day dem di seeti borom xam-xam yi ndax mën na caa jële ak ragal yàlla ak xemim alaxira waaye yàlla bañ na lool lool borom xam-xam buy dem ci buur yi ndax dañ ko yokk ak bëgg àdduna ak jële ko ci lam nekkoon ci yoonu alaxira far ko yóbbu ci seen yoon mu yoonu àdduna wa qaala wax na abu xaasim abu xaasim ne xayrul umara yi ngën ji buuri àdduna yi man mooy ka xam ne ahaba sopp na waaye wa charul ki ci way xam ne ahaba al umara buuri àdduna yi dañoo safaanoo nee na ki gën ci buy adduna yi mooy bur adduna bu bëgg borom xam-xamu àllaaxira waaye ki yées ci borom xam-xam yi borom xam-xamu diine yi nga ci yées mooy kiy bëgg buur borom xam-xam daal bu bëggee buur adduna mooy yées ci borom xam-xam yi waaye buur adduna moom bu bëggee borom xam-xamu diine xamal ne kon ku baax la waxaal te mu wax ne kullul umara yi képp ci buri adduna yi muxtaajul aji aajowoo la sonn ko defoon tam muxtaajoon way aajowoo lañu ilul xolamaay jëm ci way xam ñi wa kaanat te nekkoon alxolamaa way xam ñi tafiru di daw mën na itam yafirroona di daw bi diini xaaji seen diine mën na itam bi diini him yattulu boona xam danañu leen sàkku waxum te ñoom yafiroon danañu daw min hum ci ñoom fale yow ma tey jii nag ataa dikk na alxolamaa way xam ñi bi xel wi him ak seen xam-xam ataa dikkal na alxolamaa way xam ñi bi xel wi him ak seen xam-xam abwaaba salaatini bunti buur yi wa salaati yu te buur yi yafiruun danañu daw ñun wut ñoom alyawma tey ji waxum te ñoom yatlubuuna hum danañu leen sàkku nee na ci ba ak nay baax ndegam mas naa baax boroom xam-xam yi dañuy daw buri adduna yi buri adduna yi di leen dàkkaa ko wuti waaye tey ji moom nee na boroom xam-xam tey ñuy wuti buri adduna yi su buri adduna yi di leen daw loolu moo tax nag fa xaribat terap alxulamaa way xam ñi alal umara yi ci way ci buuri adduna yi wa xaribat te rab itam al umara buuri adduna yi alal xulamaa yi ci way xam ñi nee na lii tax nag borom xam-xam yi jërëjëf jërëtuñu dara dara dara fa buuri adduna yi buuri adduna yi itam jëriñatuñu dara dara fa fa ca borom xam-xam yi ma kenn ku sa morom daal dañoo daal léegi borom xam-xam yi jërëtuñu dara fa buuri adduna yi buuri adduna yi itam noonu borom xam-xam yi jépp li ndax li bëgg ci ñoom ci adduna. nangu nangu leen koo jox wa isa kaana ndem nekk na al umaraaw buuri adduna yi hum ñoom allësina di ña nga xam ne yaatoon danañu dikkal alxulamaa way xam ña kaana kon nekk fii zalika ci loolee salaahul fariqayni defarub ñaari kuréel ñëpp nee na bu fekkoo ne buuru adduna muy jóg dem di fekki borom xam-xam borom xam-xam toog fa mu war a toog rek ñu fekk si ko mu nekkoon ñaar ñëpp daañu defaru kon buur yi baax borom xam-xam yi baax lépp jub وقال وخنا الفضيل فضيل نه ولو سان دونت نيوغالون اهل الحلم ني خم خم الحلم خم خم با واحز واحزوه تني تدال كو وانسلوه تني واتيكو حيث انسلوه فم كو واتي الله يالا وشحو تني ناي على دينهم شين دين لقد حد كون موك وي كون تروخ لهم نيل لين رقاب الجبابرتي غاتي نتا نتا كوني الجبابره موي بروم دوني بروم دوني رغلو يالا جمبو جبار لا wan xaada te woomatu lahum ñeel leen annaasu nit ñi wa xassa te tedd al islaamul islaam wa ahluhu ak ñoñam walakinnahum waaye ñoom istansalo wàcc nañu am fusahum seen bopp wala yu baaloo te faaliwuñu bi wàcc la nga xam ne naq sa wàññiku na min diineem ci seen diine ida salimat ne mucc na lahum ñeel leen duniyaahum seen adduna nee na bu fekkoon ne borom xam-xam yi dañoo fonk xam-xam bi teg ko fañ ko a teg doyloo diine fonk ko kon na nga gis buri adduna yi ak seen ndag ñëpp ñëw di leen raamal ko sukkal te kon l'islam tedd ak waa l'islam waaye li yàq nag nee na mooy borom xam-xam yi ñoo jékki-jékki wàcc seen place dem di dabu nag léegi buri aduna yi nga xam ne léegi bu ñu amee àdduna rek bu seen diine manqué itam seen yoon wàññiwul leen dara mooy wa bataloo te ñu jox ilmahum seen xam-xam li ay dunya ñeel doomi aduna yi li ñu siiboo ngir ñu jot maa la nga xam ne fi ay diihim nekk na seen loxo fa zalloo te ñu torox fa zalloo te ñu tarxiis boo ko defee daal jitoy muy fa dalloo te ñu torox boo ko defee raasi muy fa zalloo te ñu tarxiis waxaanoo te ñu doyadi xàll naas ci nit ñi li yàq rek nee na mooy boroom xam-xam yi dañoo jël seen xam-xam jox ko doomi adduna yi maanaam jox ko waa adduna moo tax léegi far lépp yàqu te defuñu ko lu may rek bëgg am la li nekk ci loxoy waa adduna maanaam boroom xam-xam yi dañoo jox seen bopp doomi adduna yi ndax bëgg am adduna jëm yor dong loolu moo tax nit ñi woyofal leen kenn faaleetu leen kenn tegatu leen fenn nee na mooy fa zalloo waxaanu xalan naa si wa baxasa yónni woon na xaaroonu xaaroon ar rachid te mooy xaaroonu rachid ilal imaam yi jëm ci ilimaan bu malik malik yónni woon na jëm ci imaam malik li yatiyoo ngir mu dikke ko bil muwatta yi ci téere bi ñu wax muwatta li yasmaahoo ngir mu dégg ko minhu ci moom fa baxasa te yónnee ilahi jëm ci moom al imaamu ilimaan bu malikun te mooy malik ne ko annal xilma naka xam-xam man na it innal xilma naka xam-xam yusaaru def na ko siyaare wala yësuur waaye moom du jóg di siyaare ji kenn wala takunte bu nekk yaa amiral muminin yow buurub jullit ñi aw wala man di aji jëkki koo xam ne yadaxu dana sippi alxilma xam-xam fa yadaxak ba mu lay sippi allahu yàlla mu ne Haarun ar-Rashid buur la woon mas naa yónnee ne ko dama bëgg nga ñëw andil ma sa téere bi nga taalif muy al-Muwatta Maalik Maalik tontu ko ne ko xam-xam day des ko war a seet si waaye wër dem di seeti kenn te nag bëgguma yow bu jullit bi nga doon ki njëkk a sikki xam-xam ki njëkk a daaneel xam-xam ci suuf ba yàlla di la suufeel di la daaneel loolu bëgguma nga def ko wa baxaasa yónni woon na yónnee woon na sultaanu buxaara buurub jullitu buxaara ilal buxaari yi jëm ci al buxaari yi liyaatiyahoo ngir mu dikkee ko liyaatiyahoo mooy cosaan la bi saxihi ci saxihom ba fil hadis ci hadith li yasmahu ngir mu dégge ko min ko ci mom fa baxasa yoni ilahi jëm ci mom al bukhari yu buxaari yu ne ko inni naka man man na anni naka man laa uzillu duma al hilma xam-xam wala aati te duma dikkal abwaaba salaatini bunti buri fa in kanat dem nek na la ka ñel aajo ilaa shay'in jëm ci dara min fu ci moom fal tax dur nii na nga ma teewal mooy na ma dikkal fii masjid ci sama jàkka aw fii daar yi ci sama kër mu ne kilifa Buxaaraa ga dafa yónni woon ci albuxaari yi mi nga xam ne moo moo taalif as saxiixu mu ci addis ñu wax saxiixul Buxaari yi téere boobu mu taalif boole ci addis yu wér yi mu ko ba àggal kilifa Buxaaraa da yone ci woon ko dama bëgg nga ñëw nett li ma téere bi nga talif bukhari yi ne ko ah man day bëgguma toroxal xam-xam to duma dem ci bunti buri su am na ci aaji woo dal da ngay ñëw fekk ma ci sama jàkka ba ci sama kër di waxtaan ci ma yow waxiila waxees na li story ñal sufyan astori ataahu ak bataaxel min hindi ay yaalihi bàyyi ko fa ak njabootam yëchkoo na ñuy jàmbat alfaaxa te ñàkk ne ko law marata doonte romboon nga binaa ak nun ila sultaani jëm ci buur bi law marata cey boo romboon binaa jëm ci buur bi fa qaala mu ne wallaahi ji ci yàlla laa asal du ma ñaan adduniya adduna man yàlla mi nga xam ne yam li ko xaa ko moom fa kay fa naka la koy ñaané man ko xamni la yam liko haadu ko mom sufyan asori ne ndax ma sa jot ak bataxel bo xamni ak njabotam ñoko bind diko jambat ñak guñu ñak ne ko ci bu andul ñun ba ca ba ndax mu jox la ay addi yu bari ndax su ñak ji dañ mu ne leen man day aduna yalla mi ko mom sax duma ko ñaan aduna ma diko ñaan ko xamni hmm. momuko wa fihi nak na ci aydan batay mu ne wa dakhilu aji tabbi ala sultani ci bur mutaharridun aji garalu la aji soflu la lil ma'siyati ñal ak moy imma bi fi alihi ben ci jëfam wa imma bi sukutihi wala ben ci wa imma bi qawlihi wala ben ci waxam ñu wax ni bu duggé ci bur dal yett yi ci te kon yeen nga moy ci wax lo wërta wax man ngaa ci noppi ci lo wërta noppi mën ngaa mooy ci jëf yett yi daal moom tëleen boo dugg ci buur te yett yëpp jafe na fal awalu aju jëkk ji kat du xooli mu mel ne dugg xale yi ci moom fii daarin ci ak kër maxzo bat guddi guñ fëkk maanaam guddi guñ daan ci doole bi xëy di idni maalikiha ci lu dul ndigalul boroomam ci lu dul ndigalul aji moomam maanaam mooy ci jof mi ngi mel ne nga fekk ko ci kër goo xam ne ab jaambur ko moom ab jullit ko moom boo xam ne buur bi da koo nangoo ci moom ci doole rek xam nga kon boo jekkee jékki fekk ko ci kër googa war a warul dugg ci këru jaambur gi te amoo ci ndigal te ki ci nekk muy buur bi nga fekk ko ci moomu ko da koo doole ci ab jullit rek da koo nangoo ci jaambur rek kon boo jékkee-jékki dugg ci kër googa da nga mel ni ku moy ci jëf wa tawaadu ak toroxlu li zaalimi ñeel aji tooñ ja wa taqbil yadihi ak fóon loxoom wal julloo si ak toog xalaa bisaatihi cib toppeem nee na boo ko wayef lu lee maanaam aju tooñ ji mooy buuru adduna bi boo toroxalee sa bopp woyefal ko woyefal sa bopp fi kanamam loolu jëf la joo xam ne ak mooy la boo fóonee loxoom baa nga toog ci tappeem te tapp yi nga xam boo tuut bu alal ju leew jëf la joo xam ne jëfi mooy la ba yi ñaareel bi ka sukkooti yi mi ngi mel ni ak noppeem xam mun karin walis lu bon raaxuloo gis na ko xonaali ko foofee waxan samaax yi fuxshin ak walis dégg aw ñaawteef وكذب الأكفن وشتم الأنغاني وإيذاء الأكلر كنورة لور ولا يقدر تلو أتن أن يغير مصاب ذلك لوله تي ومن حالي خم فسارا أن يقو في موضه تبرب وحالي متى مخم لأنه نكمم لا يقدر دو أتن على إسالته تبدندهم فإنه نكمم لا يجوز دغن بدغن لهو نيالكو خضوره تيوي بريب بوبه xam nga lam ne woon mën naa nga moye fa ci kaw noppi la ne manam am nga gis fa lo lu bon lo xamni waran nga caa wax te do ci ñemee wax dara nga noppi nga ci noppi kon ak moy la ba nga dégg fa aw ñaawteef ba aw fen ba ñi ngañ ba ñi xass ba ñi lor ci làmmiñ ku ñu wëtt lor te loolu do ci man dara noppi do nga cey def te mu ne bo xamni bi bidub sàngam ña fay def lo xamni ayna te bo demee do ci man dara kon do fa sañ dem bi bo xamni ne fay def lu ay rek te bo demee do mëna faj lu ay la rek kon waroo faa dem wa ñetteel bi kaddu xaay mi ngi mel ne ñaan li zalimi ñal aji ja wa akuk taggam wa tasdiqi akuk dëggalalam fii kasibihi ci aw fenam wa izhaarihi akuk feeñalam akuk feeñalalam laxoo ñeel ko alxubba cofeel wal bachaachata ak belli belli mooy tàllik kanam ñetteel bi mooy li mu ne woon mooy fa ci wax mooy fa ci wax nag nee na mooy mi mel ne nga di ko ñaanal ak doliku ak mucc ak yooyu nga loolu ak mooy la ci wax ndax ku aju tooñ waris ko ñaanal aw yu wala nga di ko tagg baa nga di ko baa wax lu amul nga di ko dëggal nga di ko feeñalal ci làmmiñ sopp goo sopp ak tàlli kanam goo xam ne nekkul ci yow loolu bu waxee lu amul nga dëggal ko mbaa nga tagg ko mbaa nga di ko ñaanal aw yiw yooyu la ci ay wax wasu ila laajee foon assoori yu sufyaan assoori yi xal yusxaa ndax def na jox ndox xal yusxaa ndax def na màndal xal yusxaa ndax def na nàndal azalimu aju tooñ jamaa am ndox ida ashrafa ndem sapp na xalal xalaaki ci dee fa xaala mu ne laa déedéet daxooxu bàyyi leen ko xataa yemoota ba mu dee fa inna zalika naka loolee ak dimbaleel la xooñeel ko mas nañoo laaj Sufyaan as-Sawri ne ko waaw ab buuru àdduna walla borom doole ji borom doole ji ñeme yàlla su maree ba nga xam su naanul dee ndax sañes na ko jox ndox mu ne déedéet boo ko joxee ndox mu dund day mel na nga ko dimbale ci lam nekkoon ci tooñ jaami yàlla yeeg ñeme yàlla dañ ko bàyyi mu dee noona ba fi duxooli nekk na ci dugg xala zalimi ci aju tooñ mafaasidu ay du ay yàqu min iqtidaay xayrihi ci royu ku bokkut ak moom ba takk siiri sawaadi zalamati ak baril mbooloo mooy tooñ waxee yu zalik ak lu dul loolee waxee di zalika xaalis wax na ko al yadaal yi yadaal nee na boo dee fekk buuru àdduna wala borom doole ju ñeme yàlla ngay dem ci moom ay yàqu-yàqu yu bare bare am na ci ndax bokk na ca keneen du lay roy def li nga def ku gis ngay def loolu day daal di bëgg roy def li nga def. te it loolu day tax tooñkat yu bari fekkoon ne buuru àdduna wala tooñkat dañ koy daw kenn bañ a dem ci moom kon ñu bari duñ sawar def buuru àdduna wala ab tooñkat waaye nag boo fa dee dem sa morom dem fa loolu ay tax tooñkat yu bari dañ yo daal yi wax na loolu amal qadaaw daal àtte fa kafaaka bay na la fii ci moom maa la nga xam ne xaala waxoon na ko baaduhum lenn ci ñoom fii dammi yi ci ŋàññam nee na féetiwoo àtte atte baax na bu fekkee da ngay ak ngi def ngir yàlla waaye loolu da cee jafe loolu da cee jafe tax mu ne mbirum atte moom am na ko ci wax loo xam ne rek boo ko déggee xam ne atte wóorut def ko nopp mu ci yombut kooku daa waxoon ne alaa yëgal fa tabir na nga xalam yowmal qadaa yi bi sub atte ba wa faslihi akuk teqaleem isaa xasara ndem pank na allahu yàlla alxalaayiqa mbindeef yi af zaatan mbir mu ñu ay benn benn loolu woy la alaa faatadir yowma alqadaai wa faslihi ida xachara allahu alxalaa'iqa abdaada na nga xalaat bis penc bu dikkee ba yàlla dajale mboole mbindeef yi di leen woo kenn kenn leen woo kenn kenn tazakkar fàttalikul xadisan ab hadis fil qadaa yi ci àtte ruwaatuhu boo xam ne way nettaleem sixaahu nooy wér lañu taxudu na nga wéeru billahi ci yàlla aflaha taxena man ka nga xamne haza haada na ci yalla man it faxondu na nga muslu ndax muslu mom wéeru laqtu ba ñoy mom aflaha taxena man ka nga xamne haza laqtuna neena del fatli na del fàttaliku ba yonante bi waxan ci mu até nga xamne amna ci até ca do xamne da xam dëgg ba ko koko dong moo ci mucc waye ka xam dëgg wu ko ak këréer ba nopi dem di até ñoyamo ñom ñëpp kaw safaan nga la leen dikk mu addis boobu dee ko fàttaliku wadaxte nga bàyyi xuttatal ahkaami cërub atte ya maanaam paluk atte ya way ay gore yow laatali déet nga koy féetewoo daa yi wax naam laatali bul ko féetewoo bul nangoo falu walaw ànd misran ak doonte naka misra xat waliita faloo nga ko wa baxdaasa ak baxdaasa nga ko def xadd waliita def ko wa baxdaad def na ko def daal des na ko tomb itam da koo tomb foofu ngir wayu nag ndax lam daan lewoon fee man xaaza moo tax fii mu ne wa baxdaada dafa wax ne mbirum daal moom sa yoon bu ko jege mukk mukk bu la doon fal lu mel ne misra wala baxdaad itam bu mu tax nga nangoo falu wala xëy doon doonte waxee sonn lii ñeel ma ne ma man ahmaqu naasi ana ku gën a dof ci nit ñi kullihim képp ci ñoom ashartu ma junj ilal qaadi jëm ci aji àtte fa qultu ma wax lahum ñeen leen ne leen haza kii la nee na bu ma doon laaj kan moo gën a dofe ci nit ñi ma joxañ saa loxo ab àttekat ne leen kii moo dof dëgg-dëgg kii mooy dof wa haza lii nag ñu ngi koy wax fii man ci koo xam ne yajooru dana jeng fii xabaa yi ci àtteem ba nde wa amma man daal koo xam ne laa yajooru du jeng ka Omar ibn ni ki Omar ibn Fakaba qada'uhu fakaba qada'uhu ab atem min afdali tahaati mi ngi bokk ci ngën ji topp yàlla yi walakin waaye nag xàll néewaana may yëkkoonu ku nekk ka zalika naka noonee fil qadaa yi ci atte ñu ne boo gisee ñi ngaa ñi mbirum atte jugal da jaa jafe rek moo tax ñu koy wax waaye boo fekkee mën ngaa jugal moom maanu ni ko omar ibnul xataab mbaa sëtam bii omar ibnul abdul asis hmm, kooku loolu jaamu yàlla yi gën a màgg mi ngi bokk ci kon yooyu jamono àtte ba mi ngi bokk ci jaamu yàlla yi gën a màgg bokk ci topp yàlla yi gën a màgg waaye nag mel noonu moo jafe ba li fi nekk ak saruhum ñépp ci ñoom fii zaman naa ci sunu jamono haza jile maalu màgg-màgg ashbahahum niroole na leen bi qaadi sadooma ci àttekatub sadoom almaaroof ka di kuñ xam ni lépp ci waa jamono ji àttekat yu dëng la ñu doon mel ne àttekat bi ñuy bëgg a nett li mbiram ñu koy wax àttekatu Sadom wa mimma bokk na ci li nga xam ne xëy na na ko fii jawr yi ci jàngam ne am rajulan naka waaye kaana nekkoon na raaj ban di aju war maxasow jot yi ànd ak soxnaam xalaa ximaarin ci ko am mbaam fa marra te ñu romb bi xaw min ci aw nit nit fa daraboo te ñu lool alximaara mbaam ma waqataxoo te ñu dagg udunay yi ñaari noppam wa danabahu akub geenam fa taxabata te dàjjantu moom mbaam ma wa saqatat terab al mar'atu jigen ji an imari bayiko ci kaw mbam fa asqatat te janina mbemur manam dafa am ben way bu waron ci mbam and ak soxnam bañu rombe aw nit nit ñi ñoo door mbam dal deug nopi mbam ak gen ba mbam dajja dajat dajanto jigen ci daanu fekk mu tollu won ab digante naka mu daanu far am doom manam am doom ci waru ko naam fatrafaha ñi yëkëtente manam ñu bokk atté wonte ila qadi sadoma jëm ci atté katub sadom ñu dem nak ci atté kat do do xam mu atté len manam borom baam ak soxna si ak gaayo ko def loola ñoom lañ yobbu ci atté kat ba fa xala mu wax li soo ji ñeel jëkkër jëne ko idfa jiñal imraataka sa soxna ilayhim jëm ci ñoom yatta onaha ñu laal ko manam ñu jotté ak mom hatta tahmilu bu mu ëmbu wa yaruddunaha te ñu koy delloo ilayka jëm ci yow wa aatihim te nga jox leen alximaara mbaam ma yastaxdimoonahu ñu koy liggéeyloo xataa yambuta ba mu sax dana bu foo genam ba koy delloo ilayka ci yow seetal loolu rek xam dañ koo tooñ da ngeen romb rek war ci mbaamam diggante ñu daal di dagg nopp yaa genn ba soxna sa daanu far am doom moom day wax ko àttekat àttekat bi ne ko da leen di jox sa soxna ñu jotee moom na nga daan def ba am doom nga leen jox soxna si ñoom itam ñu jotee ak moom ba mu ëmbaat su ëmbaatee ñu delloo la ko xam nga mbaam itam xam nga geen bi dafa dagg nopp yi dagg mu ne ko da nga leen koy jox ñu koy liggéey di ko liggéey ba keroog geen bi saxaat nopp saxaat su waa ñu delloo la ko. wax yi la waxees na ne inna rajula naka waaja daxaa ñaan na yàlla xale yi ci seen kaw. fa si fa te moddloo suuf lufloo suuf yàlla lufloo suuf bi yëm ci ñoom wala ñoom xate desut min ahali sa dooma ci ñooñ sa doom ahadun kenn ne na ba waa ji ñaanee yàlla ñaan nga dafa daal dal yàlla dafa wax suuf modd dëkk bu benn yoon suuf ban na dëkk bu benn yoon ak ñu ca nekkoon nga xam ne kenn desatu ca nee nañu wa mimma bokk na ci li nga xam ne yaxarumu dana araam ak du rashwati jàpp ger li hadith ngir ab hadith manam ngir hadis bi wax ne la rashiya wal murtashiya war rayyata ar rashiya aji joxe ger wal murtashiya ak aji laj ger war rayyasha ak kay dox ci digante ba wa humum moom ma mooy ka nga xam dana tabi bayn xuma wa yatawassatu sen digante nee na addis ba nee na suñu borom de ñett ñëpp rabbu ki nga xam ne mooy laaj ger gi ak ak koy jox ak koy dox ci diggante ba war rashwatu rashwatu nag ak jumaalin mooy jàpp alal li ibtaali xaqin ngir neenal dëgg aw taxqiqi baatilin wala dëggal caaxaan wala dëggal neen nde wa amaa daful maalin daal joxe alal li ibtaali zulmin ngir dindi ak tooñ ngir neenal ak tooñ aw taxqiqi xaqin wala dëggal dëgg fa jaay suñ aji dagan la li daafi ñeel aji joxe ji xaraamunte aji araam la xalal aaxis ci aji jàppe ji xalal qadaa yi ci boo toppee atte wala futiyaa ak boo toppee ubbee al qadaa mooy li nga xam ne al qaadi moo ko wax muy atte bi yoon al futiyaa mooy li nga xam ne al mufti moo ko génne muy al fatwa al mufti mooy kiy joxe mooy kiy wax atte bi te sañu ko wéyal ci kooka alqaadi yi mooy ki wax àtte bi ba am sañ-sañu wéyal ko nag daa wax ne boo déggee ger ñu ne ger dafa aay mooy nga jox nit alal fekk nekkoo ci dëgg bëgg mu jox la dëgg maanaam boo joxee nit alal ngir bëgg la nekkoon dëgg mu soppi ko caaxaan mbaa lu doon caaxaan mu soppi ko dëgg waaw loolu mooy ger waaw fekk loo xam du dëgg nga bëgg